ban rôle la jàmm am ci tabax aw askan dal koy tëj jàmm kàddu la benn kàddu la goo xamante ne rek buñ ko waxee dafay jëm ci lépp luy tax ak dal am ak kaaraange ci biir askan bi moo xam jëf la walla wax moo koy sabab waaye lépp lu tax ak dal am ak kaaraange ci biir nekkee ne doomu aadama ñu sori jëfandikoo doole ak noteel xel xel mu dal am loolu la ñu jàmm ragal duutu fi nekk tiitaanga duutu fi nekk stress duutu fi nekk mooy bëggu tëju yooyu yëpp duutu fi am ragal nag saa bu amee rek mooy lu ñëwagut la ñuy ragal waaye lu xas teew moom teew na waaye lu ñëwagut la ñuy ragal kon baraana lu nit di tiit nekk ci jaxasoo lu ñëwagut moo koy waral ci beneen anam mooy nit ki yëg ak dal wala mbooloo mi nekk di dundandoo ñoom ñëpp yëg ak dal walla ñi ci ëpp yëg ak dal kóolte am seen diggante cofeel am seen diggante ak yàqute ak mettital yépp sori leen loolu mooy jàmm kon genn kàddu gu néew la waaye bu yaatu la mu doon lu am solo nag ndax bokk na ci xéewal yi yàlla xéewal yi gën a mag ci yàlla xéewale doomu aadama mboolem lu yàlla jox doomu aadama su ca jàmm amut du ko mën a jariñoo kon jàmm mooy laytaayu daanaka xéewal yépp mooy tax li yàlla bëgg ci ñun ci àdduna mën a sotti mooy taxit la ñuy ci àllaaxira ci wàllu texe mën a sotti bu jàmm amul dara du sotti loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ni man asbaha minkum aminan fi sirbihi muaafan fi jasadihi indahu quutu yawmihi fa ka annama xizat lahu dunya képp koo xam ne xëy na am xel mu dal amuk dal am jàmm yaramam sutantewul ba noppi mu am lu tolloog dundu bés bi rek mel na ne jox nañ ko àdduna ak li ci biiram kon loolu dafay wane ne rek lu ama am solo la kaaraange nag buñ ko waxee benn baat la waaye dafay làmboo yu bare bari yu lënkaloo am na lu ñuy wax al amnul yi muy am kaaraange ci sa wàllu xel ak sa xalaatin am na lu ñuy wax al amnul yi am kaaraanga ci wàllu dund sa pas-pas am na lu wax al amn ala al ashxaas wa ala al am na kaaraange ci jëmm yi ak kaaraange ci seeni moomeel am na lu ñu wax al amnul ci li ñu wër fi ñuy am na lu ñu wax al amnul yi mooy kaaraange ci ni li ñuy lekk li ñuy dund ak al amnul qawmi mooy kaaraange ci mbooloo mi lépp kon dafa doon benn baat boo xamante ni dafa làmboo yu baree baree baree bare doo mën a wax rek ci fànn bii rek lay doon waaye yu baree bare waaye lépp daal li ko lal mooy xel mu dal xel mu dal xel nag la koy dalal ay mbir yu baree bare la la koy naxal tamit ay yu bare la bu xel dalut jàmm am jàmm du am kon jàmm mbiru xel la gën a doon laata muy nekk mbiru yaram doonte yaram ak xel benn bu ne bëriwul bëriwul dañuy dëflante ci seen biir ku ci nekk ci jàmm mën a jeexital ca sa moroom waaye ku ci nekk ci tolof tolof mën a jeexital ca ka ca des bu xel dalut mën naa feeñ ci yaram waaye bu yaram wérut mën naa feeñ ci xel looloo tax dañoo doon yoo xam ne dañoo ànd moo tax ku bëgg jàmmu am ci yu baree bari ngay liggéey jàmm jooju door a am door a matale sunu borom bi muy bi muy wax euh, jullit ñi di danaa leen nattu bokk na ci yim tudd ni dana leen ci nattu mooy léeg-léeg dana dana leen nattu ci ñu am ak tiitaange dana leen nattu ci xiif dana leen nattu ci ak ñàkk dana leen nattu ci wéradi ak euh, euh, yaram bu sutante ak faatoog yëpp yooyu yëpp bi mu ko boole musiba la ko tudde wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juu'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wa thamarat wa bashiri sabirin alladina ida asabatuhum musiba yooyu yëpp bu ci am rek musiba la kon musiba du rek faatu faatu moom étape la waaye yeneen yi ci des yëpp lu ci dal nit rek musiba la ak ñàkk musiba la wéradi musiba la tiitaanga xel mu dalut musiba la ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp lay tudde musiba musiba yooyu nag benn bu ci dal aadama mu mun ko te rafetal mu ñeen wa yàlla da koy fay fay gu rëy rëy rëy na baatu kaaraange ak baatu jàmm lum lënkaloog koom am koom ci biir alquran al karim al iqtisaad bari na kaaraange al am lum lënkaloog am am wala mu lënkaloog tiitaanga wala mu lënkaloog tooñaanga bari na ci barab yu mu ko tudd yoo xam ne yëpp boo ko xoolee benn mu tudd fa xiif wala mu tudd fa euh, euh, ragal walla mu tudd fa yeneen fal yaabudu rabba hada al bayt alladi ataamahum min tudd foofu wa amanahum min xawf tudd tamit fu muy tuddee joxe ci yoonu yàlla ca jeexital ba day dalal nit ki wane ko ne ko ku koy def te yàlla tax tiitaanga ak lu muy ragal duutu amati bari na ci ay barab yu ko waxee alladina min bokk na ci alladina yunfiquuna amwalahum billayli wannahaari sirran wa alaaniya fa lahum ajruhum inda wala xawfun alayhim wala hum yaxzanun kon euh, bari na lu am-am am boobu nag dafa doon lu am solo ci dundu doomu aadama ndax bu kaaraange amul am koom du mën a am nañ ko bëgge waaye it euh, dafa dañoo lënkaloo kon kaaraange faaw mu am koom man a am koom it munta am ca kaaraange amul su ko defee nag tiitaanga ak xiif ak ñàkk ak wéradi yooyu yëpp dafay jokkoo ak am dafay jokkoo ak am moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa doon wax ne ak ñàkk fu mu wàcc bu bu takkee bagaasam ni day tukki ak weddi yàlla danaan ko yóbbaale ma neewaana nit ki ñàkk toll ci yenn tolluwaay ba noppi xel mu dal ànd ak xel mu dal moo tax da koy lënkale ak am yéefar yi tamit bokkoon na ci ay jëf yuñ doon def la ko doon waral mooy ak ñàkk mooy jur doom di ko sóol wala di ko rey doom yu jigéen ñi yooyu ragal ñàkk bokkoon na ci li taxoon ak daw ay fere kon loolu it mooy tax gis nga tubaab yi lu ci bari ci yëngu-yënguy àdduna yi buñ koy bu ñuy wax li ko waral bokk na ci mooy ak ñàkk la pauvreté te toujours buñ ko bëggee saafara dañuy fexe ba am koom gën a jëm euh, gën a gën a bare waaye ndax loolu rek dana doy loolu ab laaj la àdduna bi mbootaay gi nga xam ni moo gën a kawe ci mbootaay yi taxawu way daw làqu yi ci barab yi nga xam ne jàmm amu fa muy euh, muy al mufawwidiyya al ulya lil laajiin 2018 biy weesu dafa joxe ay statistiques ay chiffres di ci wane tolluwaayu àdduna bi ci ñàkk jàmm mu ne am na lu tolloo juróom-ñaar fukki millions 70 virgule 8 millions million ci ay nit yoo xam ne nekkatuñ fañ dëkk fañ cosaanoo benn ci jóge nañ seen dëkku cosaan ci seen biirum réew dem ci beneen barab ci biir réew mi wala ñu jóge seenum réew dem ci beneen réew lu tolloog 70 virgule 8 million ci ay nit ci àdduna bi loolu nee na mbootaay googu nee na lu tolloog euh, juróom-ñaar fukki at ci ginnaaw lim bu toll noonu mus mus cee am ci ñàkk jàmm ci ay daw ci yeneeni réew boo delloo ñaar fukki ak ci ginnaaw dafa doublé dañ koo ful ñaari yoon nga gis ne àdduna bi mel na ni lu poom muy gën di màgg dafay mel ni ñàkk jàmm dafay gën di euh, tasaaroo ci loolu nag lañuy wax ne bu jàmm amee yii mooy mën a am bu amul yii dara du ci mën a nekk mooy faru al xuquuq al asasiya mooy nit ñi seeni àq ak yelleef pour ñu mën mu mën ñoom faawu jàmm am bu jàmm amul du mën a sotti beneen bi ci des mooy nit ñi seeni liberté seeni sañ-sañ ci wàllu pas-pas ci wàllu wax sa xalaat ci wàllu dem ak dikk bu jàmm amul loolu dafay tënku lool moo tax nga gis ay réew yoo xam ne bu fa jàmm amul dañuy def li ñuy wax couvre-feu la ñuy wax wala état d'urgence maanaam di wutal nit ñi heure yu ñuy génn ak heure yu ñu dul génn bu aw xew-xew bu mag sax amee cim réew lu mel ne que ay tànn njiitu réew da ngay gis ñu tënk liberté nit ñi ñi leen diirub sàngam mayuñ kenn mu tukki diggante dëkk ak dëkk mayuñ kenn mu yor ngànnaay ak yeneen ak yeneen ngir sàmm jàmm doon jàmmu am cim réew it mooy tax xiyam yi mooy valeur yi ñëpp man koo sàmm mu mën a sax nekk culture ci biir euh, dundin bi muy xajoo am war naa lante am liberté am su ko defee jàmm gën a mën a sax beneen bi ci des mooy mooy mën a tax tamit nit ñi mën a dund seen diine mën a def seen liggéey ci luy jëmale seenum réew kanam beneen bi ci des bokk na ci mooy tax doomu réew mi nga xam ne doomu réew mi ñi nekk ci bitim réew di daan seen doole ngir dundal seen i njaboot ngir bokk ci lu doxal seenum réew moo tax seen alal jooju mën a ñëw fii ñu am xel mu dalam dellu si ci réew mi indi alal jooju euh, investiraat ko fi dundal njaboot gi bokk ci li doxal réew mi moo tax it jàmbur yi nga xam ne bokkuñ ci réew mi xëy na waaye am nañ alal ñu mën a xemmeem ñëw ci réew mi kon dem beeg dikk beeg tourisme beeg yëpp jàmbur rek moo ko mën a euh, indi daf mel na bàyyi laaj mi may sonn kon ngir tënk rek dañuy wax ni rek jàmm jooju ngir mu am loxo ñëpp ci war a nekk bu kenn xeeb boppam ci ab tooluwaayam nit ñëpp kilifay diine yi ñoo yor kàddu yi kilifay politique yi ñi nga xam ne yàlla da leen a mbooloo ñuy wax nit ñiy déglu imaam yi ak jumtukaay rajo yeeg télévision yi ñëpp ñëpp ci am wàll kenn ku nekk waar woon ci war a euh, taxawee kenn ku nekk bañ ci waaram ca kenn bañ a xeeb luy indi fitna ni nga xamante ne sawara lu mu néew néew aw ferñeent boo ko xeebee mu lakk sa dàgg boo ko xeebee mu lakk sa kër yàq sa àdduna naka noonu tamit ni nga xamante ni jàngoro kenn du ko xeeb boo ko xeebee mën na laa faat noonu it lépp luy indi aw ay ci kàddu ci jëf ci nekkin nit ñi dañ ko war a moytandiku loolu lañu ñu Sëriñ Tuubaa tegtal ni niyatul xayr wa qawlul xayr wa fi'lul xayr wa mulaazamatul xayr rafetal yéene yi rafetal wax ji rafetal jëf yi ca sax ca dàkk na mooy mën a tax jàmmu am in wi wa qul wa faal wa laazim taslami mukarraman rumil ula bi karimi waykat bi noonu la ko tënkee kon jàmm kon noonu ko sëriñ bi tënkee rek mooy loolu nan jàllu di rafetal yéene yi rafetal wax yi